askanu noyin askanu mooy lii noyin nit ku jub woon di ku mat ci biir nit ñi mu bokkal jamono te di kuy topp yàlla noyin nag amoon na ñetti doom yu góor sem xam ak yafet booba fekk na àddina yàqu te fees ak ay yàlla teg ci bëtam yàlla gis ne àddina yàqu na ndaxte jëfi ñépp a bokk ñaaw fi kaw suuf noonu yàlla ne nooyin dogal naa ne dinaa boole faat mboolem boroom bakkan ndaxte ayu nit dajal na kaw suuf dinaa leen boole ak li ci àddina faagaagal yow nag wutal dénku sipar yettal ci sa bopp gaal gu mag nga sàkk ci ay néeg te diw ko koltaar biir ak biti ni nga koy defare nii la na guddaayu gaal gi di ñetti téeméeri xasab yaatuwaay bi di juróom fukki xasab taxawaay bi di fanweeri xasab yetal mbaar mu ko tiim te nga àggale gaal gi bàyyi lu tolloog xasab diggante kimi ji ak mbaar mi sàkkal ko bunt ci wet gi te séddale ko ñetti néeg yu tegloo benn ci suuf benn ci digg bi ak benn ci kaw maa ngi nii di indi mbënnu ndox ci kaw suuf mu far lépp luy dund lu asamaan tiim te lépp lu nekk ci kaw suuf dina dee waaye dinaa fas kóllëre ak yow nga dugg ci gaal gi yaa ak say doom ak sa soxna ak sa soxnay doom te xeeti ràbb yépp nanga ci dugal ñaar ci gaal gi wu ci nekk nga def ko góor ak jigéen su ko defee ngeen ànd mucc xeetu picc wu ci nekk ak xeetu bàyyima wu ci nekk ak wépp xeetu rab wuy raam ci suuf dina def ñaar ñëw ci yow baraw sàkkal ci bépp xeetu dundu denc ngeen bokk dunde la noyin def lépp lu ko yàlla sant def na ko. saar yàlla musal na nooyin ci mbënn mi. gannaaw ba loolu amee aji sax ji dafa wax nooyin ne ko dugal ci gaal gu mag gi yaak sa njaboot gépp ndaxte nit yi jamono ji yow rekk laa ci gis nga jub ni ma ko bëggee. xeeti rab yu set yépp yóbbaale ci juróom ñaar yu góor ak juróom ñaar yu jigéen ak ñaar ci xeeti rab yi setul te ñuy góor ak jigéen te xeetu picc mu nekk yóbbaale ci juróom ñaar yu góor ak juróom ñaar yu jigéen ngir seen xeet bañ a fey ci kaw suuf ndax kat li feek juróom ñaari fan dinaa wàcce taw ci kaw suuf diirub ñeent fukki guddi ak ñeent fukki bëccëg ba far ci àddina mboole mbindeef mu ma sàkk noonu nóyin def la ko aji sax ji sant lépp bi mbënn mi ñëw ci àddina booba fekk na nóyin am juróom benn téeméeri at nóyin dugg na ca gaal ga ànd ak ay doomam ak soxnaam ak soxnay doomam ya ngir mucc ca ndoxu mbënn ma rab yu set yi ak yi setul ak picc yi ak yiiraam ànd nañu ak noyin dugg ca gaal ga def ñaar ñaar góor ak jigéen ni ko yàlla sante nuyin ba juróom-ñaari fan wéyee nag ndoxu mën ma agsi ci kaw suuf at ma nuyin amee juróom benn téeméeri at te fukki fan ya ak juróom ñaar ca ñaareelu weer wa kere la bëti ndox ya ne jaay jóge xóotey géej bunti ndoxi asamaan ne kulbét mu ne yu réet taw bi sottiku ci suuf dirub ñeent fukki guddi ak ñeent fukki bëccëg keroog bés boobu la noyin ànd aki doomam yu góor sem ak xam ak yafet ak soxnaam ak ñetti soxnay doomam yooyu ñu dugg ca gaal ga àndandook rabu àll yépp lu ci nekk ak wirgoom ak jur gépp lu ci nekk ak wirgoom ak lépp luy raam ci kaw suuf lu ci nekk ak wirgoom ak lépp luy naaw lu ci nekk ak wirgoom muy picc mbaa boroomi laaf lépp luy boroom bakkan def na ñaar ñaar ànd ak noyin dugg ca gaal ga mboolem xeetu mbindeef rekk di góor ak jigéen ni ko ko yàlla sante ci kaw loolu aji sax ji ne ràpp buntu gaal gi gannaaw bi nooyin duggee mbënn ma nag di wal ci àddina diirub ñeent fukki fan ndox ya di yokk gaal gay jóg ba tëmb tiim suuf lu sore ma ngay gën di yokku tey baawaan ci kaw suuf ba gaal ga tëmb di dem ca kaw ndox ma ndox ma di walangaan ba mëdd tund yu kaw ya fépp fu asamaan tiim mu yokku di yokku ba gëna a kawe tund ya lu mat fukki xasab ak juróom mboolem mbindeef mu daan dox ci kaw suuf dee na ca picc yi ak jur gi ak rabi àll yi ak lépp luy raam ci kaw suuf dee na ñoom ak nit ñépp mboolem mbindeef muy woroom bakkan ci kaw suufa bokk dee luy dund ci àddina daldi sànku ba nit ak jur ak luy raam ak luy naaw lépp la aji sax ci raafal ci àddina noyin rekk a des moom ak ña àndoon ak moom ca gaal ga noonu ndox mi walwali ci kaw suuf diirub téeméeri fan ak juróom fukk saar nooyin génn na gaal gu mag ci biir loolu yàlla xalaat na nooyin ak li mu nekkal ci gaal gi di rabi àll yi ak jur gi yàlla daldi yebal ngelaw mu wol kaw suuf ba ndox yi wàcc bëti ndox ya ca xóote ya dafa taxaw bunti ndoxi asamaan tëju taw bi dal noonu ndox mi taa ci suuf di wàññiku bi téeméeri fan yi ak juróom fukk matee nag ndox ma gën a néew ba juróom ñaareelu weer wa amee fukki fan ak juróom ñaar gaal gaa nga teere ji tundi araraat ndox may wàññiku rekk ba ca fukkeelu keroog ba fukkeelu weer wa teroo ca la njobbaxtali tund ya tàmbalee feeñ teg nañu ca ñeent fukki fan nooyin door a ubbi porox ndoll ba mu sàkkaloon gaal ga daldi yebal ab baaxoñ muy naaw di dem ak a dikk ba ndox mi fend ci kaw suuf mu teg ca yebal pitax ba xam ndax ndox mi ci suuf fer na waaye pitax ma gisul fenn fu mu tag ndax ndox mi muur na suuf sépp mu dellusi nag fa moom ca gaal ga nooyin tàllal loxoom jàpp ko dugal ci biir fi wetam négandiku na juróom ñaari fan doora yebalaat pitax ma ba mu dellusee ca ngoon indaalewul lu moy xobu oliw wu tooy wu keppe ca sàll wa noonu nuyin xam ne ndox mi taawoon ci suuf fer na mu négati juróom-ñaari fan bàyyiwaat pitax ma waaye bi yoon dellusi waatul ca moom at ma noyin amee juróom benn téeméeri at ak benn keroog benn fanu weer wa jëkk ndox ma taawoon ca suuf daldi fendi noyin ubbi kubéer ga xool ba gis ne kaw suuf sépp wow na keroog ñaar fukki fan ak juróom ñaar ca ñaareelu weer wa ca la suuf si door wow koŋ ba loolu amee yàlla ne noyin génnal gaal gi yaag sa soxna ak say doom ak say soxnay doom génn waale lépp luy xeetu mbindeef mu ngeen àndal picc yi ak bàyyima yi ak luy raam ñu fulandiwu ci kaw suuf daldi giir te bare noonu nooyin génn moom ak i doomam ak soxnaam ak soxnay doomam ya rabi àll yi ak luy raam ak luy naaw ak luy dox ci kaw suuf lépp génne ca gaal ga lu ci nekk ak wirgoom nakal la génn daldi sàkkal aji sax ji saraxalukaay màggale ko ko mu sàkk nag ci mbooleem rab wu set ak mboolem picc mu set jébbal yàlla ca saraxalukaay ba muy sarax suñuy lakk mu jeex noonu xet gu neex nga gillee ca sarax sa yéeg fa aji sax ja booba la wax ci xolam ne dootuma rëbb suuf mukk ndax nit doonte ba muy ndaw lay dale xënte lu ñaaw ci xolam dootuma boole fàdd mukk lépp luy dund nii ma ko defe dootu njiwooy dakk mbaa ngóob te du sedd ku tàngoor du nawetit mbaa noor mbaa guddeeg bëccëg saar juróom-ñeent ak noyin noonu yàlla barkeel noyin ak i doomam ne leen giir leen te bare ba fees àddina mbooleem rabi àll yi ak picc asamaan ak mbindeef yi raam ci suuf ak jëni géej yépp dinañu leen ragal lool teg naa leen ci seeni loxo mën ngeen dunde boroom bakkan yooyu yépp jagleel naa leen mbindeef yooyu yépp ni ma leen jagleele woon gàncax waaye bu leen lekk yàpp wu ànd ak deret ndaxte dund ngi ci deret seen dund nit itam mu ngi ci seen deret kon kat képp ku tuur seen deret dinaa ko ko topp te mala mu ci rey nit dinaa ko ko topp ni may toppe nit dinaa topp ku nekk deretu moromam ku tuur deretu nit na nit tuur deretam ngir melokaanu boppam la yàlla sàkke nit yéen nag giir leen te bare fulandiwu ci kaw suuf te fees ko noonu yàlla wax noyin ak doomam yi mu àndal ne leen bés ki tey fasal naa sama bopp kóllëre sama diggante ak yéen ak seen askan fas ko it sama diggante ak mboolem mbindeef mu ngeen àndal muy picc akuk jur mbaara bi àll lépp daal lu génnandoo ak yéen ci gaal gi di lépp luy dund ci kaw suuf ni may fase ak yéen kóllëre nii la deesatul boole mbindeef yépp faat ci mbënn mukk du menn mbënn mu deeti faagaagal àddina yàlla neeti kóllëre gi may fas ak yéen ak mboole mbindeef mu ànd ak yéen day sax ba faw te lii màndargaam mooy lii def naa sama xon ci niir yi muy màndargaal kóllëre gi dox sama diggante ak àddina saa su ma dajalee niir yi ci jaww ji ba xon gi feeñ ci niir yi damay daldi xalaataat kóllëre gi ma fas sama diggante ak yéen ak mboolem xeeti mbindéef su ko defee ndox dootul sabab mbënn muy faagaagal lépp luy dund xon gi day nekk ci biir niir yi ma di ko gis di xalaat kóllëre gi ma fas faw sama diggante man yàlla ak mboolem xeetu mbindeef mu nekk ci kaw suuf ci kaw loolu yàlla ne noyin loolu mooy màndargaal sama kóllëre gi ma fas ak mboolem mbindeef mu nekk ci kaw suuf mbirum nooyin ma ak ki doomam doomi nooyin yu góor yi génne ci gaal gi ñooy sem xam ak yafet xam mooy bàyyu kanaan ñooñu ñooy ñetti doomi noyin yu góor te ci ñoom la àddina sépp soqi ko noyin nag baykat la woon noonu mu jublu ci njëmbatum reseñ mu am bés mu naan biiñ ba màndi tëdd ci xaymaam daldi sàgganu ba loolu amee xam bàyyu kanaan gis cëri baayam génni waxi ko sem ak yafet ca biti noonu sem ak yafet ànd jël malaan teg ko ci seeni mbagg doxe gannaaw ba agsi doora sàng seen cëri baay dañoo dumóoyu ba gisuñu seen cëribaay baay mànditem giif nooyin yeewu daldi yëg ni xale bi def ak moom ba mu ko defee mu ne yal na kanaan torox bay jaamu jaami doomi ndeyam mu dellu ne cant ñeel na aji sax ji yàllay sem yal na kanaan dib jaamam yal na yàlla lawal askanu yafet dël ko ci xaymay sem te kanaan di seen jaam gannaaw ba mbënn ma wéyee nooyin dundaat na ñetti téeméeri at ak juróom fukk nooyin dund na juróom ñeenti téeméeri at ak juróom fukk door a faatu